am naka journée bi ak tàngaay bi. Ah, gis nga ko maa ngi nii ñàkk tooy xep. defagum naa 20 minutes ci bis bi mënuguma dem. léegi ñun dañoo bëggoon a xam ban jafe-jafe ngeen di dund ci embouteillage bi ak ban dégâts moo ko causé ak ñan ñoo responsabilité ak ban solution lañ ci mën a am pour mu wàññeeku. waaw loolu moom boo ko gisee booy xool man état bi rek laay wax parce que état moo fi teg force de l'ordre da ngay xool ci ku la wàcc 16 heures pour nga génn pour nga génn Petersen di nga fi def une heure de temps fii bi rek boo xoolee. pour nga génn ci garage bi bu oto bi feesee ba war a génn di nga def trente minutes quarante minutes boo génnee pompier pour nga yegg problème la boo paasee tuuti kolobaan pour nga dugg biir manis wala pour nga jaar si autoroute bi problème la jigéen ñu bëri dañuy am problème ak seen jëkkër parce que 16 heures la ñuy wàcc seen jëkkër xam nañu 16 heures la ñuy wàcc mais 22 heures la ñuy yegg wala 23 heures góor ñi tam dañuy am problème dañuy wàcc seen jëkkër yi naan leen foo leen seen jabar yi naan foo leen jaaroon te loolu lépp état moo ko war a def xam nga pompier gi dañ fa war a taxal ay force de l'ordre pour affaire bi yolom croisement Colobane dañ ko war a teg noonu pour affaire bi yolom mais actuellement booy xol à cause de terre bi tëj na fépp man fi ne nii xam nga fu may ñibbi maa ngi ñibbi ba Pout mais damay dugg Petersen wàcc buntu Pikine wala Poste Thiaroye bu ma wàccee pour ma amaat oto pour ma mën a dem problème la man ay 23h laay yegg ni nga ma gis nii ban heure jot maa ngi ci biis bi mais fi ne nii ay 23h laay yegg fi ma jëm mais force de l'ordre yi lañ war a yokk alkaati warta wàcc ay 6 heures dañu war di liggéey ba 22 heures loolu mooy lool mooy yoon parce que ñun lañ fi nekkal kon dañu war a taxaw taxawal nit ñi mais ci kanam tuuti da ngay gis oto yi ñu ngi bouger kenn du mën a dem kenn du mën a dikk demal fii rek pompier gi kenn du dem kenn du dikk da ngay def foofu ay une heure de temps loolu c'est anormal dugg Dakar dafa metti dafa mel ne da ngay ziyaare ji lu metti la moom vraiment. papa waxtaan bi mujjee naa neex violence bi. ah violence moom baaxul. état mooy organiser élection état moo war a jël responsabilité sàmm nit ñi élection mënut a ñàkk que maire gagne mais nan ko teg si yoon rek. citoyens yooyu ñoo war a taxaw dem jëli seen carte dem voté ji état ak force de l'ordre yi ñoo war a couvrir tout le monde parti opposition parti au pouvoir yëpp les force de l'ordre ñoo leen war a taxaw. man daal noonu laa gisee bu nu bañee violence am xam nga nit ñi dañuy dérégler mais homme de tenue yi bari nañu nañ leen jël teg leen par. léegi lan ngay conseillé ñi ànd ak candidat yi. ah li ma leen di conseillé woote rek dem woote rek dem que le maire gagne kenn ku nekk dem vote ji loolu devoir citoyen bi le ku dul vote sax yow dafa mel ne yow doo citoyen nit ki war nga war a am lu la neex ak lu la naqari sa dëkk élection bi jotee da jël sa carte nga dem vote ji mais dañu ne état. comme le président Macky Sall moom moo moo nekk au pouvoir mais moo moo war a jël ay matukaay ba xeex du am xuloo du am nit ñi dem voté si jàmm ñibbi si jàmm. papa yow koy voté. Ah, xam nga ku may voteel ki bëgg sénégalais yi di jariñ sénégalais yi. mooy kañ papa papa bàyyi affaire yi nga mooy mooy ki war a dindi coono. mooy kan mooy non kooku. papa kan ngay voteel. kooku mënut a kooku moo mun a gut a leer mais xam nga ne sénégalais yi ñoom ñi ngi jooyee vraiment.